léegi Youssou Ndour grand lan ngay xaar ci Youssou Ndour leneen lu dul mu am gel roi du mbalax bu amul gel lu muy def ku am 70 ans di lëmbal c'est-à-dire no grand dañuy waxante bi lan ngay xaar ci Sénégal xam nga lay bañ na man bokkuma léegi sénégalais lan moo tax Youssou Ndour am gel dem am gelam mu war a bett sénégalais yi quoi. waaw man de ma lu tax mais war nekk débat loolu. waaw du débat la warul. lan mooy suñu yoon ci Youssou Ndour mais lan bu am gel quoi. warul nekk débat warul nekk débat. Youssou Ndour buy xeex ak de champagne lan mooy suñu yoon. suñu yoon quoi ban njëriñ lañ ci lan la dañu wax dëgg rek quoi.